bokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di delluwaat di yeesal sunu cant ak sunu njëbal ci mawlaana wa rajaa'ina seyxina ahmad alxadim radiallahu anhu wa nafaana allahu bi barakaatihi di ñaanal alxalifatu aam li tarixati almuridiya sëriñ Muntaxa ayadahu llah wa nasara wa aafi sawara di ko ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak taal bi yëpp fu ñu mën a ne ci kaw suuf ak jullit yëpp di bu baax itam sunu sëriñ sunu bunt ci Sëriñ Tuubaa waaye sunu bunt ci kër boroom gaawaan di Cheikh Sidi El Mokhtar Sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom Sëriñ Modou Rokhaya di ñaan yàlla guddal ab fanam te wéral ay cëram ci barke maamam Sidiyal Maxtaar borom gaawaan di siyaare bu baax a baax sunu jëwrin ci bërëb bi di sëriñ Fallou Gala Sylla ak itam mbokk taali yi mu ko àndal yëpp di siyaare bu baax sëriñ Modou Abib Thiam mi nekk ci xarala gi di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak ñu àndal liggéey bi yëpp di ziare bu baax a baax képp ku ñuy déglu fii ci Assalaamy FM 99 point 0 waaye itam Assalaamy TV ñi ànd ak ñun ci site bi site Assalaamy TV ñun ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax ku mel ni Serigne Moustapha Guèye jànkatu xasida di baaxoo di teewlu émission bi di ziare bu baax a baax itam sunu xalifa. sëñ Mouhamed Amine Guèye ñoom itam ñu ngi koy bàyyi xel ñoom sëñ Mara ak ñoom ñëpp rek sëñ Cheikh Cheikh Modou Guèye Karousse ñu ngi leen ziare baax baax di ziare itam sunu njabootu bopp tàmbalee ci sunu waajur wu jigéen ak sunu mag ak soxna yàgg yëpp rek bàyyi wuñu kenn. émission bii di maktabatu cheikhul xadim radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi di émission boo xam ne ñu ngi ci baaxoo waxtaanee lépp sëriñ bi lépp sëriñ bi nag buñ ko waxee mooy ci li yàlla ci ab taalibe ci li mu war a xam ci ab sëriñam li yàlla cim xelam mu war koo xam ci sëriñ Touba moom lañuy baaxoo baaxoo waxtaan waxtaanee fii ci euh, émission bi di maktabatu Cheikhul Khadim waaye itam di ndokkeel bu baax njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne. ñu ngi ci seen wareef saa ne mooy di seetal ak sellal dëkkub sëriñ bi ci ni ñu ko sant saa ne mu mel ni dëkk bi tàmbali naa yëngu lool waaye lépp delluwaat ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ndax mu ne xam na ne tey ñu ngi woon ci seetal bërëb yi ak itam jëmbat ay garab ci ndigalal xalifa bi ak ci turu ki jiite réew mi Bassirou Diomaye Faye loolu lu am solo la ndax suñu borom subhaanahu wa taala bi mu fi nummee yebal sunu maam aadama euh, malaayika dañ ko waxoon ne ndax da ngay yóbbu ci suuf koo xam ne dafay tuur deret ak di yàq yàq yooyu da caa bokkoon ñu fi nekkoon ñu ne ay jinne lañ woon dañ daan tuur deret ak di dagg gàncax yi di yàq kon dafa bokk ci luy dundal àddina bokk ci wawaru doomu aadama mooy seetal di sellal ak di jëmbat ay garab ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mi nga xam ne moom mooy suñu yaakaar teeg ëllëg bi mu fiy jógee altine ji jiñ ko mujj a gisee ci dimanche ji toog na ci xay goo xam ne toog na fa jàpp te xay ko moo ko jëmbatoon fee ci njareem kon loolu lu am solo la lu mot a bàyyi xel la kon ñu leen ci ziare bu baax a baax émission bii di maktabatu Cheikhul Khadim euh, ñu nekk ci jubluwaayu wàccaayu màggal gi xam naa sax ñu ngi waajal ay jotaay yoo xam ne dañ koy tudde dix-huit safar dix-huit kàngam nga xam ne bu benn fanu safar tàmbalee ba bisu màggal ga bis bi yàlla sàkk ñuy ànd kenn ci borom xam bi yi nekk ci yoon wi ñuy jàngat dundub sëriñ bi ak i jaar-jaaram waxtaan yi ñu weesu ñu ngi doon waxtaane itte ju kawe ji sëriñ Tuubaa amoon ba taxoon mu yenu yen bu rëy bi liggéey bu tedd bi nga xam ne kenn dootul liggéey lu mel lu mel ni moom nga xam ne liggéeyal liggéeyal la yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tàgg ko ak julli ko ci xeet goo xam ne kenn dootu ko kenn dootu ci def lu mel ni li ci Sëñ Tuubaa def li muy wax naan madaxtuhu xam la daa limér weli madxan wana an mislihi kull kon loolu day wane li mu defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàddaloon na yëpp wàlliw su waxtaanu tey dafay jëm ci bi sëñ bi amee itte jooji ba tàbb ci liggéey bu tedd boobu fi sëñ bi tàmbalee fi mu jógee jëm ci liggéey bi te mooy Mbàkke Baari ñu gën koo xam ci Mbàkke Baari Jolof xam nga ne sëñ Tuubaa bi mu nekkee fii ci Tuubaa euh, nekk ci li ko taxoon a jóg mooy a tarbiyatu ruux mooy yar ruux yi ndax la ma waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma digal ne ma rabi asaabaka bil himma wala turabbihim bi dars yaral sa àndandoo yi ci itte te bañ leen a yar ci njàng ci njàngum kese yar boobu la nekkee woon Mbàkke Kajoor moom la ñuy woon Mbàkke Bool moom la nekkee woon Daaru Salaam moom la nekke woon itam fii ci Touba waaye bi mu nekkee fii ci Touba ba dem ba gis ne ñi ñuy tarbiya ak ñi war a jàng alxuraan kese ak ñu war a jàng xam-xam kese ak ñi nga xam ne xëy na ñoom ñu ngi ci tàmbalee ami kër tàmbalee ami ay soxna dañoo tàmm tàmmalee jaxasoo mu gis ne moom la ko taxoon a jóg rek ba léegi ca loolu la nekk taxoon mu xalaatoon jiima soppi bërëb boo xam ne ca lay ànd ak ñam war a tarbiya Seex Amadu Lamin Jóob Dagana nee na axbarani aqi wa sayxuna wa ibnu xaalif cheikhuna mouhamadou Bousso ibnu mouhamadou Bousso al maaruf bi Mbàkke Bousso si mun la daga ne nee na sama mbokk sama mbokkum taalibe waaye di sunu sëriñ di doomi ne yaayu sunu sëriñ di sëriñ Mbàkke Bousso di doomi sëriñ Mahamadou Bousso nee na xibaar na ko ci mbirum Mbàkke Bari ba xamal ko ne ko sëñ Tuubaa moo ko wax ne ko jaxasoo gi day mi ngi bëgg a bari te man yar rek moo ma tax a jóg ba tax na xooloon na fii ci bawal fu mën a am bërëb boo xam ne dana fa mën a dem ba àggalee tarbiya gi mu nekkoon waaye bi mu xoolee bërëb boobu jàpp ni wut fii ci bawal fi mu jàpp ni ci moom mooy jolof mu dem fee ca jolof muy Mbacke Bari jolof nga xam ne ab dëkk la boo xam ne daf ko sancaat mu dem sanc ko ci weeru zawal ci ama bay sasin te mooy 1312 1312 la ko sanc 1313 mu dem ci géej gi ni kon diggante sanc bi ak dem ci géej gi matut at te sëriñ bi moom lim nekkoon rek mooy saa su ne nekk ci di wut jàmm ak fas yéene liggéeyal boromam subhaanahu wa taala ci façon liggéey boo xam ne du ànd ak tur bakkan ndax ban ko ne da ngay jihaad daa wax ne damay jihaad wax ngeen dëgg waaye inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuxo damay jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla ba tax na bi muy sañc Mbàkke Baari waxoon na suñ Mbàkke bu mu bind lettre boo xam ne daf koy jox gouverneur général di ko xamal ak toxoom fii ci tubaa ak demam fee ca Mbàkke Bari suñu laaj bu bi mu joxee gouverneur lettre boobu yi daf caa bëgg lool ba jël sax li ñuy wax ay xadaaya muy ay addiya jox ko sëriñ bi ngir am mbégte lool ci euh, loolu yi mu ko yëgal nga xam ne am na naar boo xam ne sëriñ bi waxoon na ko ngir mu dem wàcc ca gànnaar tàgg ak tàggu ak njabootam ndax daa war ànd ak moom ci tukki bii mu war a def ci géej gi wala dafa ànd ak moom dem màkkatal mu karrama daa war moom dem màkkatal mu karrama ngir ziyaare ji rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam naat boobu wax na ne bi mu demee ci ak njabootam di waaj amul lul rek jékki-jékki dégg ñu ne sëriñ bi amlante ne ak tubaab yi ba ñu yóbbu ko ci géej nga xam ne daanaka amlante googu euh, li ñuy wax alwasat te mooy ñi doxoon ci diggante sëriñ bi ak tubaab yi ci xeeti ay ceddo baa ñuy wooye ay sëriñ di jaxase diggante sëriñ bi ak tubaab yi bu def sëriñ la moom daa jàppoon ne sëriñ bi kat ku ko am ku ko may ak yaatal dana nangu say taalibe yóbbu ci boppam buur yi moom jàppoon ne sëriñ bi ku ko yaatal dana jël say dag def leen ay taalibe kon firaangeel ñaari kilifa yooyu juraloon na ay jaxase yu bare bari ci di ko tuumaal day fetal jihaad ndax Cheikh Omar ak Ahmadou Seexu nekkoon itti jooju ci la nekk ba tampon boobu nga xam ne kenn ci ña ñëwoon jël na ko def ci tampon euh, Samba Laobé di wane ne man ak Serigne Touba ñu ngi waaj ab xare ñu ngi waajal ay ngànnaay ngir fës yéen a dal ci yéen tubaab yi kon loolu jaxase la boo xam ne li ñaan seetaani waxu dëgg waaye yàq na am yàq na am xel kon bi demee ba wax ci bari ci tubaab yi ci diggante ñi wooye ay ay sëriñ baa ñuy wooye ay ay buur li li ñuy wax naan azaylu zuba maanaam mbir mi ëpp na nag ci la tubaab yi nag jóge di woolu sëriñ bi ba bi sëriñ bi yónnee borom daalu borom daaru mu borom daaru moxti maam Cerno Birahim ngir mu dem xamal tubaab yi ne moom li ko tax a jóg ak ci lim nekk bokkut ak ñoom liñ jàpp ba bi maam Cerno demee Ndar ki ko doon waxal diggante mi ak tubaab yi su maam Cerno waxee jàmm mu wax ab safaan ngir bëgg ñagasal mbir mi ngir bëgg ñaawal mbir mi ba tubaab bi daa mujj ab xarkanamam dafa ñëkk ba maam Cerno bépp ci am xelam mu sell mu xalaatee ne kii daal daa mel ni kuy soppi samay wax ci la mujj dem jël beneen interprète mu ne ko yow kii nga indi ak li kii doon ak ak ak doon wax du benn mu ne ko kon kee moo sopp samay wax waaye li kii doon wax li may wax moom lay wax mu ne ko baax na kon boo demee neel sëriñ bi na ñëw wuusi ñu fii ci ndar loolu xewoon ci 1895 ci ama jëy sa si 1313 bi maam Cerno di ñëw yoon yàgg lool ndax ku ne xam ne boobu jamono xat-xat yi yoon yi ak itam Euh, lëndëmaa yi gàllankoor yi ba bi muy si Mbàkke Baar yi fekk na sëriñ bi wàcc na ba génn fas yéene dem ndax xam nga léeg-léeg nga yónni nit da nga dem ba ci ah, man daal daa mel ni xaar mu jóg demal sama bopp kon sëriñ bi xamoon na ne mbir mi moom toll na foo xam ne moom rek moo mën a jóg jàmmaarloo ak tubaab bi ndax moom sëriñ bi ci boppam xam ne wax na ne bisu bésub samedi laa génn fii ci Mbàkke Baay dem ci géej waaye mi ngi dogu ci ajjuma la dogu moom sëriñ bi ci ajjuma la dogu fas yéene tab bi ci liggéey bi ci xasidaam googu mu defoon tudde ko asbunallahu wa nimal wakil wa xaala bi ansi xasidati taasantu jumaati hina azamtu ala yowma sabti kon fekk na moom mu dogu ci ajjuma ji ngir fas yéene dugg ci liggéey bu tedd boobu yi nga xam ne ku dut moom mënoo ko liggéey bi bam daaru ñëwee wax ko bu ko wax ni mbiri tëdde mu ne ko na dara matumaa wax jànj ba nga taxawoon xoloon na ca dox sax gis naa dégg naa seen seen tànk ya yokku ga na muy yëngu sax dégg naa ko kon dénk naa leen seen borom subhanahu wa taala fu soob fu leen bu fekkee mën ngeen dëkk fi ci Touba ngeen dëkk fii waaye bu fekkee mënoo leen dëkk fi ci Touba fu soob yàlla na ngeen fa na ngeen fa dëkk sëñ bi waxoon na loolu bi mu demee bi mu demee nekkee ci yoonu tukki bi ci mbind moo xam ne bindoon na ko jox ko jox ko euh, magam euh, Serigne Mor Diarra radiyallahu kon sëñ bi jóge foofu ci Mbàkke Baari wala dem Ndar wuy ji tubaab yi waaye nañ bàyyi xel ne sëriñ bi mi ngi génn fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye mi ngi àgg Ndar ñaar fukki fan ci weeru safar kon diggante Mbàkke yi ak Ndar sëñ bi dox na ko doxub ñaari fan loolu du woon du woon bëgg-bëgg tubaab yi tubaab ñoom li mu rek bu sëñ bi jógee Mbàkke Baay day ñëw ndar mu baashiratan maanaam directement waaye sëñ bi moom am na fu muy toll foo xam la muy def lépp da ci xaar ndigalal boromam subhaanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi kon bi mu àggee foofee ca jeewal nga xam ne fa la euh, daje ak tubaab yi wax nañ ne bi mu dajeek ñoom xaayirul jays muy soldaar rek ba kenn ci ñoom ñu bëgg wax ak moom nee na awaltu anhu wajhi wa tawajjahtu ila allahi mutadarri'an mutaasinan fa xaraxtu bismillahi rahmaani rahim xamsiina marra falaanat siddatuhu wan kasarat sawkatuhu wan tafaat ne bi mu bëggee wax moom kenn ci nasaraan yi damaa ubbati sama xar kanam jàng bismillahi rahmaani rahim muy la juróom fukki yoon ndax dañuy wax ne nit su gisee koo xam ne wóoluwu ko wala kanamam neexu ko ci ci ragal ko day jàng bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon waaye sëñ nag moom loolu aajo yi di ragal kudut boroomam moom du ko dal ndax moom ragalut kudut yàlla la ma waxoon ca xaalul yarkan lebaabi salaatini tans jawaïsa tourni kulla maani fa qulta asbiya rabbi wa ktafaytu bihi wa lastu raadiya xayral ilmi wa diini wa lastu arju wala axfa siwa maliki li annahu jalla yu'inni wa yunjini kon moom suñ ragalut kudut boroomam subhanahu wa taala waaye ne bi ma jàngee juróom fukki bismillahi rahmaani rahim noon boobu yi dafa daal nooy lool fi sama kanam wax nañ ne sëñ Ibrahima ak borom daa borom daaru muxti bi sëriñ bi demee ci géej gi amul benn bés boo xam ne mësta dañ di wàcce kaamil saa suñu wàccee kaamil itam daanañ jàng julli gi salaatu gi junni yoon allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaatan tunajjina biha min jami ahwal afati wa taqlina jami alxaajaati wa tutaxiruna biha min jami sayiati wa tarfauna biha indaka ala darajaati wa tubalixuna biha axsa xaayaati min jami alxayraat fi lxayaati wa baada almamaati daan nañ ko jàng junni yoon saa su ne bis bu ne sabaan wa masaan suba ak ngoon gannaaw bu xatma alxuraan ngir di ci ñaanal xëy na sëriñ bi yàlla delloosi ko ci jàmm waaye seen ñaan googee daje na ak dogal suñu boroom subhaanahu wa ndax sëriñ bi moom ba muy demee xamoon na ne day dellu si ndax la mu waxoon sëriñ Ahmadou Ndiaye maabe yi wan ko assur na ko yaa may seere damay liggéey lee ma dell si jéeri li fekk may del si doo faatu danaa la fekkaat ndax li lay aayaatu kon moom xamoon na ne day liggéey rek waaye day ñëwaat ndax danaa la fekkaat fii ngay dund loolu ñi ko ñemee engagé wax ko bëriwul kon bi sëñ nekkee foofu ci jeewal fa la fanaan bi mu fanaanee jeewal euh, bi mu jullee tàkkusaan la fa jóge daal di dem foofee ca kokki moom sëriñ bi bi mu demee kokki bi mu fa jógee dafa dem Louga bi mu jógee Louga gannaaw bi mu julee takkusaan diggéen takkusaan ak timis fala ci la takk jóge Louga daal di dem dugg saxaar dem Ndar kon Ndar sëñ bi mu fa àgg kon ñaar fukki fan ci weeru safar nga xam ne ko sëñ bi def na Ndar fukki fan ñu desoon ci weeru safar ak weeru gàmmu ak weeru gàmmu weeru fukk fa desoon ci weeru safar ak weeru gàmmu lépp ndar la ko def nekk ndar kilifay ndar ak ñi bëgg lu baax ñépp di ko ziyaara am sax ñoo xam ne àggoon nañ ci def li ñuy wax jot mooy lu mu laaj ci alal ñu jox ko jox ko nasaraan yi te sëñ bi bañ dem ci bañ a dem fenn waaye ñu ñëpp lañ bëggoon rek mooy jàmm waaye sëñ bi moom dem kese kese la bëggoon gisutoon leen lu dem ndax xam na ne liggéey bu tedd ak dara di mu bëgg ci boromam subhaanahu wa ak ngërëm li mu bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo amee lu ci jaxasoo ak tubaab yi juróom-ñeent fukk ak moom nee na waxuma laa yeneen yonent bi gërëm na ma ñu baax ñëpp gërëm nañ ma saxaaba yi itam gërëm nañ ma kon ngërëm lu tedd lool yi munu ko munu munu ko woon amee fudut ci génn liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa nga xam ne na bàyyi ko na ci moom sëriñ bi liggéey bu tedd boo xam ne dafay sax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba faw minni ilayhi xidmatun qad laazamat rawdatuhu ila xiyaami wazimat ñu baax ñépp gërëm ko moom sëriñ bi yonent bi gërëm ko saxaaba yi gërëm ko te ngërëm loolu mënu ko woon amee fu ci liggéey bu tedd boobu moo tax lépp lu ko lu ko masaa di jiima gàllankoor ngir mu bañ dem rek day day day dàq loolu raddiyaani sibtuhu jilaani ali ridwanul lazi alaani raddiyaani sibtu abul hasan ali ridwaan lazi ali ridwaan yuqallidu hasan raddiyaani sibtuhu tijaani ali ridwaan mubidil jaani raddiyaani xulafaal arbaa usridan muxarrabunal mutbaa man lam yakun aniya yarda falkarim raddiyaani ridan laysa yarim jaza illahu mustafa xayra jaza kama taqabala wa waadan an jaza kon ngërëm lu tedd loolu yi sëriñ bi bëggoon ci boromam subhaanahu wa taala bëggoon ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëm loolu yi mënu ko am fu ta tàbbi ci tukki bu tedd bi kon bi mu nekkee ndar ci yoon wi fi la waaye asiru wax naa ko léegi wan ko asiru na ko yaa may seere damay liggéey léema dël si jiir yi te li fekk may des doo fa danaa fekkaat ndar li lay aayaatu nga xam ne asiru day wane ne Serigne Touba moom radiyallahu anhu tubaab yi seen bopp ñu ngi jàppoon ne ñi ngi ànd ak sëriñ bi waaye sëñ Touba moom lim jàppoon mooy mi ngi ànd ak boromam mi ngi ànd ak yonent bi ak ñu baax ñi asiru maal abraari ina asiru wa zannan ida ani honaaka asiru asiru maal axyaari maa ngi ànd ak ñi nga xam ne ay tànneef lañ lillahi bi nabi wa maa lii li xayrin laa yaawdu mashiru waaw yasiru bi la si xaadani ila karimin ali arumu yasiru nga xam ne moom nee na ñoom ñi ngi njort ne ñi ngi ànd ak man waaye man ànduma ku dul ku dul yonent bi ak tànneefam yu teddee idwanullahi alayhim wax na ci biir ne man day samay kër wéet na taqaliku naa ak sama njaboot te dara warul loor loolu rek tag gi ma doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ñoom day seen njortu moo leen nax waaye liñ warkat bi wóor leen xusuur yi xallat wal aalo ani tafarraqat li matxi allazi anhu madi wa xasiru xarul wala xara nasara bi kaydihi wa zannu sununa wa zununa kon mu nekk ndar goog yi weer ak fukki fan moom sëriñ bi nga xam ne alxamis ji mujj rek ci weeru gàmma wow yi la la deful ndar waaye fan yooyu yëpp ndar la ko def bi mu nekkee ci loolu nag ci la ko tubaab yi jëlee foofu ci ndar daal di ko yóbbu nag ndakaaru ci diggante boobu itam sëriñ bi woy na ci asmaa ahli badrin ci diggante Mbàkke Baari ak Ndar ndax bi mu jugee Mbàkke Baari jeewal ci diggante jeewal ak Ndar woy na fi asmaa wu badr nga xam ne gis na ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Badar muy saxaaba ya ak malaayka ya ridwanullahi alayhim ba tax mooy ko tudde ko euh, asmaa yi ahlu badar waaye tur yi ahlu badar kon bi sëñ bi jógee foofii ci ndar dafa jógee ndar jëm Dakar kon ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci yoonu géej sëñ bi bàyyi ko ndar mi ngi fa jógee gannaaw bi weeru gàmma woow jeexee nga xam ne alxames ji rek la fa la defoon ndar alxames yi mu ci weeru gàmmo waaye bi muy dem moom sëriñ bi wa huwa saimun maanaam ci koor ci koor la nekkoon moom sëriñ bi bi muy dem ndar ci koor la nekkoon wax nañ bi mu eggee foofee ci ndakaaru ittewoo ñaar al futuur wa salaat maanaam li mu ittoo woon mooy julli ak dog kooram ndax daa bokkoon ci dun dund dundinu sëriñ bi moom ay kooram daa bari woon lool xàmme wutoon saabaan ak ramadaan ni ngi si Musaa ko waxe daa woor lu bari lool ngir woor daa bokk ci jikko yi nit yàlla yi waaye itam daa bokk ci ñi nga xam ne ay wax ay mutasawwifuna woor daa bokk ci seen seen i jaamu yàlla ndax yonent bi daana woor bisub altine ak bisub alxamis ci dundam gépp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ mu àggee Ndakaaru mi ngi fa yóbbaale ba kooram ak ittewoo itam julli waaye amul loolu rek woo ko moom sëriñ bi dugal ko ci néeg boo xam ne wax nañu ba mu ca tàbbee la mu wax dafa wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon loolu natt bi lay wane ne kon am nattu am na ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo waxoon ne yonent bi sal ne ko bégalal ñi nga xam ne bu ñu leen nattoo ñu ñu ñu ñu dellu ci yàlla bégal leen ci ne ñoom kat am na xéwal gu màgg ak yërmaane guy bàyyi ko ci seen borom subhaanahu wa taala ñëw ci ñoom kon ab jullit saa su ko lu métti dalee moo xam dafa ñàkk lenn ci ak njabootam moo xam yàllaa ko nattoo al joox muy xiif baa mu bay yàlla naax saayal mbay ma comme ni ko alxuraan waxee lu mën a am rek julli bi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme sëñ Tuubaa bi mu tàmbee ci néeg boobu yi nga xam ne dafa lëndëm xat lëndëm na xat na xet ga itam waliyaas billaa ñu tabale ko ci néeg bu lëndëm noonu ya naan ko làmbal mu làmb daj ay gobar ak ay jaasi ñu tëj ko foofu dem mu def saag rabbu moom sëñ Tuubaa néeg ba xam ne ba sëñ Tuubaa nee na xataayu néeg bi àgg na ci munta sujjóot sax ngir xat munta sujjóot ngir tartar waaye nee na li néeg bi xat-xat li muy lëndëm lëndëm li muy xet gi di doy waar doy waar lépp julli naa fa julli koo xam ne rakkaa bu njëkk maa ngi ci jàng faatiha ak baqara benn maa ngi ci jàng Fatiha ak Ali Imran saar yi gën a gudd ci alxuraan moom la fanaan na ci néeg boobu nga xam ne néeg boobu bi nee na soxna jaara fekk na ko fa di ko ñaax di ko di ko di ko soññ di ko fàttali moom sëriñ bi la mu bëggoon ci boromam subhaanahu di ko wax itam ay saaba yu yàlla nattu woon ci ay nattu yu tiis moom sëriñ bi waa waajuram wu tedd woow yi fekk na ko ci néeg boobu foofu ci Dakar di ko ñaax ak di ko muñloo ak di ko soññ nga xam ne néeg boobu sëriñ bi dafa nekk woon jàng alquran ak tudd borom subhanahu wa ndax tudd yàlla day ala bi zikrillahi tatma ilal xulub tudd yàlla mooy dalal xolub koo xam ne ku gëm yàlla la ku gëm yàlla saa soo xam ne yàlla natt na ko ba saa soo xam ne ab xolam jàq na baa tiit na lay dalal ab xolam mooy tudd yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ala bi zikrillahi tatmainul xulub kon suñ ci waa nekkee fa tudd boromam subhaanahu wa taala ak itam jàng alquran te alquran tudd yàlla la ndax afdalu zikri te alquran li gën ci tudd yàlla mooy jàng alquran waaye suñ ci waa nee néeg boobu day métti na méttiwaay goo xam ne li muy doon doon jàmbaar moom sëriñ bi radiyallahu anhu nga xam ne sëñ Basiiru nee na mas naa toog sëriñ bi ci njaareem sëñ Tuubaa di nettali tukki bi mitit yi ak njàqare yi ak tartar yi ba am ku toog mu métti ci moom lool mu ne ay mbàkke loolu métti na de mu ne ko waaw métti na de waaye musuma musuma saalit musuma saalit waaye nit bi Sëñ Tuubaa nee na iza zakartu saalikal mabita wa saalikal amira wa subuta taar ilal jihaad bi armaay nafsi walakin sabba anil maayi nga xam ne saa su ko xalaatee day bëgg a jóg sax jël ngànnaay jàmmaarloo ak ñoom bi fas yéene xeex ak moom waaye yonent bi moo ko dalal kon xat la woon waaye itam néeg bu metti la woon waaye itam bokk na ci yi nga xam ne itam yu metti la nga xam ne mel ni ko metti la ñuy wax euh, euh, fooy ca Maayamba muy bi mu génnee réew mi waaye metti di fii ci réew mi la tàmbale woote Ndakaaru tàmbale ci néeg boobu waaye itam bi Sëñ Tuubaa xëyee ci aljuma ji ndax alxamis la ñëw la ñu ñëw ndakaaru fanaan ba xëy di ajjuma dañ ko dugal ci biir gaal ga gaal googu wax nañu sëñ ci ajjuma ci gaal ga lay yendu ba daanaka sax fa la fanaan ba daanaka sax fa la fanaan kon bi mu xëyee ñaari fan ci weeru euh, diggu gàmmo ci la sëñ nag ba ba tamit ci la deqee nag daal di jëm foofu yi ca euh, Conakry waaye nee na ci biir bato boobu bii nag bi ma ci tàbbee nga xam ne moom waxoon na ñett moo ma tax ak génn may liggéeyal yàlla benn mooy am daraja yi kawe ci suñu borom subhaanahu wa taala ñaareel bi mooy ma ramm sama xeet beneen bi mooy ma nekk ki nga xam ne mooy maa nekk xadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu la yonti moo ko sàkk woon raama rasulullahi min ilahi kawni xadimu wa abdullahi nee liggéey boobu yi nga xam ne moo nekkoon sama bëgg yonent bi sàkk ko ci boromam subhaanahu wa taala nee na liggéey boobu ci biir gaal googi la ma suñ borom subhaanahu wa xamal ne ma yow yaay kii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu confirmation la ndax nit dana bëgg dara di ci dox di dox ci lu leerut di sikk sàkk est-ce que li ki may doxal lii est-ce que bëgg nangu na ko wala nangu ko wala est-ce que am naa ci ndigal te laa tafxalu shay'an bi xayri izn fa izn sartun fi xawlu sha'ni kon suñ ci boromam subhanahu wa moo ko ne moo tax mu ne allamani rahmanu fi safina bi annani xadimu zil madina neen suñu borom subhanahu wa ci boppam arrahman moo ma xamal ci biir gaal gi ne ma yow day yaay kii liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee bi ma ree départ foofu ci ndakaaru nee na wa jaahu fi fulkil masxuuni muriduhu aya fatan mamooni roda al muridu summa rajaa ila jasidati bi qalbin wajaa nee bi ma ree moom sëriñ bi ci gaal goog tëdd ci gaal goog yi nee kenn ci muritam yi ñëw na fa muriduhu waaye wax mooy si muloo daga nee na yaani bi muridihi Cheikh Ibrahima Fall nee na moom la namm ci ci wax jooji ñëw na am naqar lool am njaqare xol lool ci dem ngi sëñ Tuubaa di leen dëddu di dem ci tubaab yi wa jaahu fi fulkihim masuuni muriduhu ay fatan mamooni waaye mu dénk leen ñu delloo ñoom muridoo yii waaye ñu ngi dellu nag ci bi xal bin wajaa ci xol bu jàq ndax ki ñu ki ñu miinoon moom Sëñ Tuubaa nga xam ne ku ko miin ba gis jëmmam ja mënatoo xool leneen lu dul moom moom Sëñ Tuubaa ku ko miin mënatoo xool leneen lu moom moom Sëñ Tuubaa nga xam ne ji gii mu nekkoon di liggéeyal yàlla sax keroog ba mu fa nammee jógee wax nañ ne suufu gaboo sa da doon jooy ngir xam ne ku mel ni sëñ Tuubaa dootu fi tànkam ba ilaa yawmi diin ngir miin gum ko miin bi nekkee fii ci njaareem taalibe yi gis njaa ngis sëñ Tuubaa ak bëgg gi ñu ko bëggoon ak nekk ko boroomam defoon taxoon na buñ ñu ko masaa seen dañuy daw di daal ci kawam ba ba ba ko xaw a gaañ la lekk ba mujjoon ñu sàkkal sëriñ Tuubaa yoon wu jëm ci jàkk ñi ko xam ne ci néegam la tàmbalee ba ca miiraab ba nga xam ne bu jógee ci néeg bi ba ci jullikaay bi dañuy seen jëmmam rek jékki-jékki mu dugg ne allahu ak ay kenn kenn du mën a àgg ci moom xër goo gii ñu xëyoon ci moom nga xam ne miin nañ ko gis ko doy ak jaamu yàlla moo taxoon keroog ba ñuy dem ba muy dem mu metti loon lool moo tax bi muy dem ci tukki boobu yi mu metti lool ci xoli murit yi ñu jàq moo tax li ñuy faral di wax naan keroog ba muy dem maam Cerno Birahim ne ko tey nga ñoo jox ndigal ñu jàmmarloo ak tubaab yi ndax yow mënuñu laa ñàkk maam Cerno ne ko tey nga ñoo jox ndigal bu laajee fay ñu fay ndax mënuñu laa ñàkk laajee Sëriñ Daam mu ne ko du Raxmaan luy sa xalaat mu ne ko wax ma li may def ndax man koo xam ne nga naan yàlla ma ne defal kooku duma ko jox benn xalaat mu ne ko demal demal daa alimul xabiir nga sax ci jàng ak jàngale kon miin ngiñ miinoon sëñ Tuubaa ak sëriñ bi ci boppam xool ko doyoon ak jaamu yàlla loolu moo tax ba muy dem ñu am njàqare xol ak tiiti xol bi sëñ Tuubaa ci géej gi koñ kon ci samedi jooji la tàbbi ci géej gi ci bato bi mu war a dem nag Conakry wax nañu foofu am na koo xam ne ñëw na ci sëriñ bi mel ni ku sopp sëriñ bi lool di digal sëriñ bi ngir mu bind ab leetar jox ko ami bi fi nekkoon ndax mel na ni nee na ko moom day ku bees la xamagul tappale yi ñi fi nekk te kuñ tooñ nga kuñ tuumaan la kuñ tuumaan nga kuñ tooñ nga amaana soo bindee leer wax ko sa mbir leeral ko li la tax a jóg amaana mu euh, fexe ba ba nga ba doo dem ci yoonu tar wi kon mbokk bi yi ñu ngi leen di fàttali ne ku bëgg ànd ak ñun jotaay mën nga def 88 628 53 53 88 vingt 628 53 53 ci émission bii di Maktabatu Cheikhul Khadim waaye sëñ Tuubaa nee na bi ma demee ba kooki waxam ji dem ba booy sama nopp yi mu ne atta amaale nii fa tanaawaltu almidaad wala xalam nee na ba ma mujj nag bëgg a jàng jëm ci jël sama daa ak sama xalima fa am mamtu aw katabtu satran ataani alxitaab min xanati rabbil bariyati nee bi ma nammee nag bind ñu fas yéenee wax loolu lii ma waa ji wax daa am lu bàyyikoo nag ci ki nga xam ne mooy borom mbindeef subhanahu wa taala ab waxante waxante wu tar ne ko atarfa wa aajataka ila maaluxin mislaka duni ndax da jël sa aajo di ko jëme ci keneen ku dut man sa borom subhanahu wa taala suñ tubaab nee na fa mittu xawfan wa ayaat wa ayaan wa maatu maa katabtu fa alha xalaya ala rajuli fa qultu laa sabi ila zalik nee ma tiit mel ni ku mel ni ku faatu sànni la ma doon binde ne ko du ma bind di sàkku ci keneen lenn ku dut sama borom subhanahu wa te kooku da ko doon laabire rek xëy na ngir xam na ne sëriñ bi dañu koo tooñ ba dugal ko ci loo xam ne ak toojaange la moo taxoon bëgg sëñ bi bind ngir xamal ko ki amir bu bees boobu amir amiru jidan jadid bu bees boobu yi xamal ko tooñ giñ ko tooñ ngir moon a dellu gannaaw ci delloo ko ci ak njabootam waaye la mujj moom sëñ mooy dellu ci boromam bind xasida sax tudde ko o fawid amri ilallahi inna allaha basirun bil ibad di wane wéeru gi wéeru ci boroomam subhanahu wa taala wa jatu xabtiya ila al maliki fi l ardi wa samaai wal muluki xasida gu ko noonu la ko tàmbalee maam day jëmale mbindam rek ci ki nga xam ne mooy buur bi nga xam ne moo moom asamaan moo moom suuf waaye buuri sax moom moom yi mooy moom mooy suñ borom subhanahu wa taala kon bi Sëñ Tuubaa nekkee ci bato bi mu bi ci samedi jooji jëm Konaakiri nee bi ndee ba Konaakiri li lay xamal ne tubaab yi tooñ bu jéggi dayoo gi ñu tooñ gi ñu tooñoon sëriñ bi tooñ bi dafa jéggi dayoo ba ëpp ndax sëriñ bi àggoon na ci tukki bi xamul fu ko yóbbu ndax keroog bu ñu ci ndar conseil privé li ñu xalaatoon mooy génne sëriñ bi yóbbu ko Madagascar baa yóbbu ko fee ca Gabon waaye jubluwaay bi rek weesuwul rek buy du fi ñëwaale bakkan ndax am nañu ko fi jiitu woon ñoo xam ne ñépp dañoo faatu Cheikh Ibrahima Mbàkke doomam bi ñu demee di visiter Gabon ci tukki boobu nga xam ne Sëñ Tuubaa nee na moo ko joxoon ndigal jox na ko ndigal ci tukki bi ngir mu dem Gabon àggali desoon ci tukki bi nee gis na ko fee ci Mbàkke Bool fee ci Mbàkke Baari këram gee ci Mbàkke Bool mu tudd Mbàkke Baari gis na ko Ndakaar gis na ko Louga c'est vrai Mbàkke bi mu demee foofu gis na ko ay mbubb yu bari yoo xam ne dañu ko ñii ñi tubaab yi ñi ngi leen sànkoon lu jiitu sa waaju di fi ñëw lañ jëloon seeni bakkan waaye Sëñ moom boroomam moo ko teg loxo jiital ko ba kenn mënul ci moom dara ndax aar gi ko yàlla aar ba xamal ko ne ko dara du la lor mucc nga ci ayu jinne mucc nga ci ayu lu mën a doon kooku ne xam na ne dara munta bàyyi koo ci mbindeef di ko lor amitu man yaxsimu nii min dara min kulli seytaanin wa jinnin wa kon di sant borom subhaanahu mi ko aar ci jëpp lor ji bàyyi ko ci seytaani walla jinni wala mbindeef mu mën a doon nee na bi mu jaaree foofii ci Conakry nga xam ne fi la déggee turu Gabon ndax Sëñ Tuubaa dëkk yi ñu ko yóbbu yëpp day am objectif buy tax ñu ko fa yóbbu moo xam Gabon la moo xam bi mu ñëwaatee yóbbu ko Gànnaar moo xam Thièyeen euh, Jolof la moo xam njaarim la dëkk yi yëpp fu mu ko ci yóbbu rek daa am lu tax yóbbu ko fa kon Gabon la taxoon ñu yóbbu ko fa mooy du dellu si waaye xamuñ ne Sëñ moom nee na ñaan gu ma ñaan sama borom subhanahu wa yàlla nangul na ma ko ba doo mën a ñaanal kon ijaal rujoohi ila xawmi saadatana wal takfina yamal jami xalxi niiraana kon moom boromam nangaloon na ko ak dellu fii ci fii ci réew mi ak dellu fii ci réew mi nee na bi mu nekkee foofu ci Conakry ne am na benn waay boo xam ne dañuy wax ne saalum saalum la ñëw na di ko di ko ziyaare ne ko damaa damaa déggoon ne danga fiy jaar jëm Gabon mu ñëw di la ziyaare Sëñ Tuubaa nee na turu turu Gabon turu Gabon ci jëmm jooju laa ko dégg turu Gabon nee na ci jëmm jooju laa dégg turu Gabon waaye waxuñu ko woon yow fan lañ fan lañ lay yóbbu nee waa ji jox ko àddiya sàkku ci sëriñ bi nee na mu dénk ko dénkaane boo xam ne daf koy mën a jariñ digganteem ak boromam subhaanahu wa taala neen suñ tuwaa ko dénk naa la foo toll na ngay wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah aysu kunt bi annahu laa ilaha illa allah ne ko day fa man tawajaa ila xayrillah fa sa yaalamu annahu la ilaha illa allah wa man tawajjaha ila allah bi xayri muhammad rasulullahi sallallahu alayhi an sallam fa sa yaalam anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ngay wax laa ilaha illa allah rasulullah ne ko day képp koo xam ne jublu nga leneen lu dul yàlla bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek mooy yàlla képp koo xam ne jublu nga yàlla te jubloo woo ko ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa bis da nga ñëw bis dana ñëw nga xam ne muhammad day mooy ndawal yàlla muy dénkaane bu gàtt waaye itam di dénkaane bu am solo ndax mooy dénkaane boo xam ne lépp tawxiit la te tawxid mooy li munta ñàkk ci doomu aadama nit ki mën naa niiw xam-xam ci fànn yëpp ba ñàkk caa xam dara lu bari ak gëmam mën na caa des ba mu des tawxid nag mooy wéetal yàlla boromam subhaanahu wa ak jox yàlla melo yo melo yooyu ñu ko mu yelloo ci diggante ñu wax euh, amuk yàlla gi a nafsiyatu yi wax asalbiyatu alma almaani almaanawiya melo yàlla yooyu nga xam dafa yell ci moom di wane suñu borom subhaanahu wa taala mat gi mat sëkk loolu xam ko farata la ndax nit ki mën naa dund ay ati at xëy xëy benn bés rek ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah gëm ko dugg ci diine dee ci bis boobu rek mboolem lu mas a faab ci julli baa woor baa lu baax kenn du ko jàpp ngir baat boobu rek te ak a gàtt waaye ak a am solo mu ne ko dénk ma ko suñu doon ko ne dénk naa la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah képp koo xam ne jublu nga keneen ku yàlla bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek mooy yàlla waaye képp koo xam ne jublu nga yàlla te woo ko ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bis dana ñëw nga xam ne muhammad ay mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon daal di romb foofu yi ci Conakry dem jëm Garambassa euh, foofu itam wax nañ ne am na ku ko fa dikkal ku wuuteeg lool ak kii ko dikkaloon ci Conakry ndax moom daa mel ni ku ñëwoon di ko sëriñ bi afulaanu bi ismi ndax yow yaay diw ndax yow yaay diw nee na sëñ moom nekk ci lim nekk rek man naa ko yow sama mbokk sama mbokk moo la sànq yow day sa àndandoo sa taalibe yi ñoo lay wooteel daraja ju ne lu la ñu la ko waaye suñ tubaa moom nekkutoon ci kenn di ko jima wooteel dara baa jubluwaayam du woon lenn lu boromam subhaanahu wa waaye nee na ci kàdd gu ñàkk teggin googi ko jëmm jooju doon wax tax na daa mujj euh, gaal gi ci boppam daa mujj di yuuxu yuuxu yu méttee méttee méttee ngir ñàkk teggin gi nga xam ne moom la doon ñàkkee teggin sëriñ bi waaye tam foofii ci Konaakiri googi jox nañ nga fay addiya yu bari moom lay wax naan addiyati safar la daa Konaakiri للمصطفى معي بلا مناكر برأني الله لدى كناكر من كل جالب إلى المناكر waaw nga xam ne kon ak fay la gu ko boroomam fay subhanahu wa taala dundombee foofii ci Grand Bassam ba jaar Daawme nga xam ne suñu fu mu jaar rek am na loo lu fa xew loo xam day nekk karaamatan ajiba day nekk karaama gu yéeme nee na fii ci bi mu rombee euh, dawme am na karaama gu yéeme ku fa am mooy dañ koo jox li ñuy wax parfum misk parfum misk nee na bi mu ko bëggee jëfandikoo ñu ne ko alqaytuha maanaam wàcc ko mu daal di euh, mu daal di koy sànni ci géej gi mu daal koy sànni ci mu daal koy sànni ci ci ci géej gi bi mu ko sànnee ci géej gi ngir def ndigalal boroomam subhanahu wa taala nee na ci lool yi bi mu rombee euh, foofu ci dawme ñu jox ko euh, miskin boobu yi mu daal di koy sànni te amul ci lenn lu muy déng-déngi nee na mujj na mbooloom ay jullit ñëw jox ko ay bi mu ñëwee wàccee ay parfum yoo xam ne kenn xamut nu mu toll ndax ndax bari muy daani rahimu inda dawmi law bi ma aani tasaami mooy xéwal googu al mon im aji xéwala ji li mu ko defal ci ay xéwal ci jëfe ndigalam rek fu mu toll moom sëriñ bi subhanahu wa taala kon jaar-jaar yi nga xam ne jaar na ko nag ci diggante Conakry ak Garambassa ak Dahomey ba agsi nag ca dëkk ba nga xam ne moo nekkoon destination wu bi te foofa mooy fan mooy Gabon neen ci biir gaal googu sa laa damay àgg Gabon am na benn am nasaraan boo xam ne waxambaane la waxambaane la neen dafa ma bëggoon lool waaye dafa ma doon liggéeyal ni ma murid di liggéeyale waaw dafa ma bëggoon lool ba yàlla tàmbal ci xolam ak mbëggeel ba fa saara yaqdimu nii xidmata xidmatal muridina waaw musta dañ ji bëgg sëñ bi ba ni mu wàccee foofii ci Gabon nee na am na fa ci dun boo xam ne am na fa juróomi at moom sëriñ bi waaye ci bërëb bu metti boobu yi nga xam ne dañ na fa lu nekk dañ na fa dugal ko ci kàmbu suul ko waaw dugal nañ ci am yiir suul ko ngir rek jël bakkanam boole nañ ak ay fukki soldaar ak ñett tiire ci kawam yóbbu nañ ko ci dun boo xam ne ay jinnee fa dëkk wiir wiir kul fa masaa yóbbu nga faatu daa ko tëj ci ay néeg yoo xam ne ay soldaar ñoo fay nekk di tox di naan sàngara am ci ñoo xam ne àggoon nañ sax di mooy yàlla ci kanamam ngir ñaawal ko ak di simpi ay jàkkaam di sànni ak itam muy taw ci kawam ay téeréem di tooy nga xam ne téere boobu yi mu bindoon ci géej gi muy Jaalbatul Maraaxib daa mujjoon jël ko sànni ko ci géej gi ngir rey imaam Jazuli ne bu dellusee ci man te toyut raafur ma xam ne nangu na ñu saak naan ba mu demee ba naagu ab sàndar mu tudd Moussa moo ko fa jox mbër ma mu mel tey la ko taalif sëriñ bi aarif kon loolu di kiimtaan ci sëriñ bi nga xam li lay li lay wan ne sëñ Tuubaa doon gim doon kiimtaan liggéey bu tedd bi xasida yi ñuy jëfandikoo fa mu nekkoon di ko def ku fa nekkoon da tal leen lu bind xasida Eh, li tax li tax mun li tax eh, xasida nekk karaama karaamati xabtu yet yi moom ci suñ tubaab karaama la ci moom waaye karaama la ci ñun daa bokk ci karaama yi maanaam jot giñ ci jot loolu karaama la ndax juróom at juróom-ñetti at yu yées tuuti ay weer nga nekk ci sa biir yi noon yoo xam ne lu ne mën lu ne ko dañ koo doon def nga nga tagg yonent bi sa sam julli ci moom sant sa borom ñaan ko lu tax lii mu def ñu gis ñu teg ci suñu bët kon loolu kiimtaan la goo xam ne euh, moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jagle nag fii laa mujje surtout surtout mis la samsi nee na fii la fii laa mujj mel ni ab jant fii laa mujje mel ni ab jant foofu ci foofu ci géej nga xam ne looloo ko taxoon a jóg waaye loolu la mujj am foofee la jaayantewoon ak yont bi sallallahu alayhi ca suufu garab ga baayaxtuhu fil baari taxta sajara wal bas wal baaru musbidun wa awli fajara almubaaya nga xam ne mooy li munta ñàkk almubaaya li nga wax bayaatu ridwaan kër bi saaba yi ne jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ousmane sax fekku ko fa waaye yonent bi daa jël loxoom teg ci seen kaw ne jaayante waale naa la Usmaan nga xam ne Sëñ Tuubaa na maa ngi jaayante yonent bi sallallahu alayhi ca suufu garab googi foofee ca maa yomba te nee na booba géej gaa ngi géej gaa ngi duusu ay kàccoor rek ñu móor bayaxtumu yi tax taxta sajara wal baaru musbidun wa awli fajara waaye nee na jaayante ko gi suñ borom def ma jaayante ak moom ci suufu garab ga géej gi duusu ay kàccoor képp wër ma suñ borom fayaat na ma ko ci geneen jaayante bayaxtuhu fil barri sajara wal jawwu musbidun wal jawwu tayibun wa xawli barara bayaxtuhu fil barri taxta sajara wal jawwu tayibun wa xawli barara loolu mooy ca ca gannaar ba muy jaayante fee géej gaa ngi duusu ay kàccoor ñoo ko wër ca suufu garab ga waaye nee fii maa ngi jaayante moom jaww jaa ngi teey ñu baax rek ñoo nga wër nga xam ne géej googu gi Sëñ Tuubaa da ko da ko da ko da ko xutba ayaa baxru waxit laa tusalis fa rabbuna taala an tasliisi akrim bihi rabba fa kun za stidrabin musbidan min maqafatin min allahi wasat annani abduhu sabba moom na si musaakir wax naan keroog la bàmba xut géej ga keroog la bàmba xut bu géej ga naa ko eh, waxit laa dosalis géej nga ngir ñoom dañuy wax yàlla sàkk jàngal wa in min shay'in bul ko sikk kun za stidrabin musbidan bul duusu lu mu ragal yaa mi tax ngay duus waaw sëñ ñi fi daan labal danoo mooy yàlla man mosuma mooy yàlla seetal bu dul man mos la jaamu rabba ñi nga fi daan labal dañoo mooy yàlla man mosuma mooy yàlla seetal yàlla kenn mosu fee ñëw ngi liggéeyal Moustapha kenn mosu fee julli fajar mbaa muy safa kon damay topp ndigal toppal ndigal te bañ a far xëy bul topp ndigal keroog la géej ga fer ba tey du duusu euh, labay naa ko bàmba yaa di ndaanaan waaw keroog la géej ga far ba tey du duusu nga xam ne ci xutbab suñ Tuubaa boobu ci la géej ga maanaam dale dal goo xam ne ba suñ joon yàlla tey fa mu nekk rek foofu lay nekk ci géej googu itam ci natt yi ba tey am na bi suñ Tuubaa wax ne wet as waxambaane tubaab dikkal ko yor jaasi di ko wëndeel ci bopp suñ Tuubaa bi naa ko ahmadu bamba wattuma wattuma wa bi yadihi sayfun islitun yudawiruhu ala rasi wa yaqulu li anta fulanun bismi fa qultu naam fa qaala ihzar minni fa inna jaddi kaana qataala li awliyaika fa inna fa anna ibnuhu fa awmahtu ilayhi bil qalami wa antaatuhu ka anni astu alay ilam bi annaka lastu bi jaddika alxatal wa anna lastu kaman kaana jadduka yaqtuluhum ne ko yow day yow wattuma te xam na yow do doo sa maam waaye man itam du ma ñi sa maam daan rey yow doo waaye man itam Ahmadu Bamba du ma ñi ko joxat bi ko xalimaam gu tedd googi mu mel ni kënu ci moom Sëñ Tuubaa daa mujjoon mel ni xalimaam daa mujj mel ni maanaam kënu gooy dóor rek ci noon yi kon mën na ci liggéey bu tedd boobu yi di liggéey bu kawe boo xam ne mënutoon a ñàkk ndax li si mu naan budul ko nag sa dem wolof nasaraan te kon billaahi ñëpp dem nii kon bu tukkiitoon ñëpp dem sawara kon day mel ni Euh, fi ñu toll ci waxtu yi mooy bëgg a xocc lool waaye li ñu war a waxtaane ci ci yoonu géej gi xaajul bay jeex waaye incha allahu rabbi li feeg rek ñuy àgg ci bis bu tedd boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar lépp loo xam ne rek xaj na ci diggante boobu incha allah daañu ko ci tabal xam naa li ñu waxoon rek ci tàmbali gi ay ay mawdu yoo xam ne dafay delluwaat ci jëmm sëriñ bi ak jëmmi yoon wi ak jëmmi tukki bi liggéey bi lépp incha allah daañ ci indi yaatoo ci ay waxtaan yu wuute ak ay jëmm yu wuute kon ñoo ngi delluwaat di santan yàlla bu baax di julli ci yonent bi sant sëriñ Tuubaa di ñaanal sëriñ Muntaxaa mu yàgg fi lool te wér di sant bu baax ñi nga xam ne ñi ngi ñu doon bàyyi xel ci Assalaamy FM 99 point 0 ak Assalaamy TV ci YouTube bi di santaat bu baax suñ Modou Abib Thiam mi nekkoon ci xarala gi lépp lu ci dëng ngeen jégal ñu ko lu jëm ñu sant ko sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu